Euh, salaamaaleykum internetu Sénégal alors tey ñu dalal fi raxu raxu nga xam ne nag euh, événement yu mag yëpp Sénégal fii moom moo koy tëgg di waajal daju 31 juillet ma bàyyi la mu nuyoo. maa ngi lay ziar Aïda am mbégte lool ñëw fii et puis di leen félicité bu baax waaw Sénégal moom vraiment local bi c'est sympa. Mm-hmm. alors 31 juillet tàmmal nga ñu ko chaque at nag nga indi ñu daju daaw daju ak maître Gims nga indi woon ren daju ñëw en live. innovation boobu la moo ko waral. waaw c'est vrai que xam nga ku def daaju deux fois. nga ne troisième bi la la war a mën a nekk. il faut que ñu xalaat loolu euh, parce que indi artiste c'est beau c'est bien mais il faut que moom benn plus euh, ba muy njëkk a ñëw ak man on l'a vu dans une grande salle le public a répondu présent deux ans bi ñu ne il faut ñu indiwaat daaju mais pourquoi ñu ne ah. on va faire quelque chose du jamais vu avec son frère Ahmed Gims. Mhm. exclusivité mondiale c'est historique Gims ak Dadju musuñu leen boole sur la scène. Mhm. on s'est dit Rakhou Prod war na ko mën def on l'a fait on l'a réussi di sant yàlla. cette année ñu ne il faut ñu def Dadju on devait le faire décembre 2020 Covid bi moo tax defuñu ko woon ñu ne kon nañ ko pousse normalement Dadju était prévu décembre 2021. mais vu que Covid bi dafa chambouler seen programme yëpp il reprend ses tournées françaises septembre incha allah version live donc ñu ne moom ce bien ñu ko ci été bi raison pour laquelle on a calé été parce que ñun d'habitude décembre la ñuy def suñu événement cette année on l'a on l'a voulu faire mois de juillet ñu ne vacances la après tabaski la nit ñi dinañu am envie faire la fête c'est les vacances voilà ça sera un bon moment pour faire un concert moo taxoon ñu jàpp le 31 juillet et différence bi mooy c'est du live c'est le premier concert de Dadju en live en Afrique quand on parle de live il y a beaucoup en Afrique donc mën naa ne c'est c'est inédit euh, en général nit ñi dañu naan mais Dadju live mooy lan quand on parle de de live mooy il vient avec ses musiciens parce que d'habitude les artistes internationaux quand ils viennent ils font avec un DJ. Mais là, c'est différent. On va voir ses guitaristes, son batteur, ses clavistes. Euh, ça va être vraiment quelque chose de sympa te amuñu woon euh, boobu option ci dajo gis ko muy way ak ay musiciens am c'est vraiment mooy inédit histoire bi nga xam ne dajo moom lay def cette fois-ci au Sénégal. Mhm. daaw nga indi ko ak maître Gims ren ñu doon xaar nga indi beneen beneen chanteur nga ñëw ne dajo kese en live. loolu moo jaaxal. waaw parce que live bi mooy mooy mooy inédit bi en fait parce que même moom il ne l'a jamais fait en Afrique c'est son premier concert en live en Afrique ñu def ko Sénégal. Mm-hmm. donc c'est quelque chose de de lourd ndax artiste moom ci boppam mosu ko def donc moo tax ñu ne il faut que ñu indiwaat ko Sénégal yi gis ko ci beneen facette boo xam ne ni ñu ko daan gisee ak bii dafay wute. Mm-hmm. moo tax raxu prod ne. il faut que ñu xeex pour mu ñëw c'est vrai que c'est pas évident de ramener des artistes en live waaw mais euh, financièrement c'est pas évident vu que ñu génn ci Covid il y a eu beaucoup de soucis derrière mais bëgg li ñuy def on est tellement passionné ba pare bëgg Sénégalais yi kontaan boole ci mm. bëgg xale yi kontaan moo tax ñuy xeex di ci sonn pour mën a réussir loolu Mm-hmm. à chaque fois daju ñëw fii day nekk conseil boo xam ne lu lu réussite la. Mm-hmm. voilà nit ñi dañuy ñëw xale yi surtout. xale yi surtout koy mu ñëw mais 31 juillet Covid bi ba tey mi ngi fii mais conseil yi mi ngi continuer tabaski ñu jàll ci xar yeeg gars yi dañuy concentré wu ci wutum xaar bi bac tamit xanaa bachel yeeg nga ko defal parce que boobu day fekk ñu def bac bi ba résultat yi génn euh, est-ce que date bi baax na pour euh, moment boobu est-ce que 31 31 juillet. baax na pour c'est dat très bonne date pour les xam nga euh, événement boo koy def dajju boo xoolee ça deux mois ñu ngi communiquer ci événement xam nga tabaski boo koy def da teel a xam date bi boo toogee ba dernière minute nga ne da ngay dem lijjanti njëgu xar. ah boo deful ndànk xar dina compliqué de. waaw mais. Hmm. Euh, euh, damay bëgg nit ñi di anticiper. Covid bi yéen ñëpp ci anticiper euh, moo tax man esprit boobu dafa nekk ci man dernière minute dañ ko war a bàyyi <coughs> euh, man seetlu naa 2018 ba may indi dajo euh, presque deux mois avant suñu billet génnoon na gars yi mais ñun lii xamuñu ko Sénégal teel a génne bi conseil yëpp ay dernière semaine lu ñuy génne. mais bëgg ne événement boo koy def le jour du concert waroo jaay billet yaa ngi ci leneen te loolu la bëgg ñun sénégalais ñoom boobu esprit ba en Europe da ngay tëgg événement France par exemple nga war a tëgg lu mel ni Bercy wala Zénith wala même suñu saal yooyu ñuy tëgg Sénégal yi dañuy bàyyi ba dernière minute ñuy dem di laaj ci ay billets te yeneen ethnie yi par exemple ñoom deux mois avant amatuñu billet guichet fermé te loolu dafay rassurer le promoteur souvent damay dégg souvent <clears throat> ngeen baal ma xëy bokkul sax ci waxtaan bi mais sénégalais naan oui sénégalais sont pas organisés imagine nga am salle bu mag ñu bàyyi ba dernière minute yow mi tëgg sa billet yu doxul deux trois jours ba ci jour concert yaa ngi jaay ay billets mais su fekkoon na yow sa billet jaay nga ko un mois avant mais yow xam nga ñaata nit ngay xaar kon xam nga ñaata sécurité ngay am xam nga naka ngay organiser sa événement ba yow lu ñëw di nga ko mën a taxaw mais dernière minute nga war a def cinq cent personnes nga ñëw gis deux mille personne taxaw di buuxante pour dugg boo amul asset de sécurité pour mën a gérer loolu boo amul assez de personnel pour mën a gérer loolu sénégalais ñu naan oui sénégalais organisé wuñu alors que ñoom ñoo jàppalewul organisateurs yi il faut que ñuy teel dem di jënd seen billet mu leer na ne yow am nga sa billet waaj xam na ne def na guichet fermé mais il va s'organiser pour que lépp jaar yoon dina am assez de personnel assez de sécurité assez assez pour lépp mën a baax loolu lu am solo la aussi moo tax ñuy tàmmal nit ñi nañ dem jënd seen i billet bu ko defee ñun en tant que organisateur du ñu mën a xëpp reprocher ci dara parce que xam nañ ne jaay nañu autant de billets xam nañu comment on doit faire pour que l'organisation se déroule très bien. mais en général euh, concert yu mag yooyu noonu artistes internationaux yi bu fiy ñëw euh, ci kër yi laa lay wax li muy demee dañ naan la boo deful lii doo dem ci concert bi nii il faut ñu chantage xale yi un peu. d'accord pour pour pour ñu kii. man je suis d'accord par exemple. waaw mais koo xam ne dina na la soo bëggee ma dina la dagg bag bi ba pare. mais xam na man man man je pense que aujourd'hui parent bu ci nekk 80 pour cent xam nga sa doom day am bag wala du ko am. ah non non xam nga boo amee kuy jàng dëgg un bon élève. mais yow leer la ne élève bi buñ ne la amul bac da ngay jaaxle tu te poses des questions moo tax ma ne en général quand on a nos enfants on sait que 70 pour cent de nos enfants ils doivent réussir parce que am nañu niveau bi pour réussir moo tax parent bu ci nekk xam nga sa doom war na mën a jàll wala moom mënul jàll boo bàyyi nag ba dernière minute nga bëgg a jàng kooku fifty fifty la mais un bon élève ci période scolaire bi yëpp ngay xam ne ni kii jànkat la. Hmm. kii bac bi bu ñëwee moom <laughs> amul wax waxu bac quoi c'est sûr que yaa ngi sax anticiper pour euh, année prochaine comment nga. voilà fa lay jàngee ak yooyu. parce que date bi dafa jaaxaloon ñëpp. 31 juillet bi ba nga wax nii et euh, puis li may ñu am amuñu ñu am amuñu. dafay am solo xale yi bac dafa metti concentration boobu. xam nga dafa metti mu tombeek ju ñëw muy samedi soir nañ leen bàyyi ñu décompressé nañ leen bàyyi ñu décompressé xale yi ils ont vécu quasiment un an et demi génnuñu amuñu spectacle amuñu concert amuñu dara année bi daal na parents yi may xale yi ñu génn loolu c'est bien pour les enfants mhm. et c'est bien pour leur éducation ndax xale boo ko bàyyee mu foo rek bu ñëwee dina xam la mooy devoir am ci kër gi. loolu tamit conseil la bi may wax parents yi nañu bàyyi di tëj xale yi xale yi ils aiment l'artiste ils ont envie de se défouler ne ko dinaa la bàyyi nga dem waaye vacance yi nag bu dee xale bu jigéen nga. toogal jàppale sa yaay dugal ci waañ bi del bale del raxas bu dee xale bu góor aussi eh, del def li lay wax. Mhm. c'est important. dernier conseil lu dama la laajoon ne la pourquoi tout le temps ngay choisir daju nga ne ma danga yaakaar ne daju sénégalais la yow da jàpp ne daju sénégalais la mais Sénégal tey am na yeneen artistes yoo xam ne bëgg nañ leen mise à part daju bien vrai que daju ba tey ni mu am ci Sénégal ba tey bëriwul artistes ñoom africains yu nekk foofu am ko mais pour quoi doo ci boole yeneen artistes yoo xam ne par exemple. yi dañ leen di déglu. comme kan par exemple Aya Nakamura woon na fi tey kii gars yi dañ koy déglu. xam nga aujourd'hui prendre deux gros artistes internationaux les réunir sur la même scène c'est compliqué sauf ñu bokk même label. Mhm. parce que ku ci nekk da nga naan lu tax diw loolu partout la am comme Sénégal ah. mhm. veux réunir euh, deux divas, c'est un problème. Tu veux réunir euh, deux grosses têtes, c'est un problème. parce que ku nekk mi ngi naan la que moo njëkk a yéeg mais lu tax ngay def kii man kenn mën naa ko feesal et puis yow sa bopp da nga est-ce que ça vaut le coup de réunir des artistes ñun en fait au Sénégal euh, sponsors yi xamaguñu valeur u événement parce que ñun li ñuy def si c'était dans d'autres pays africains mhm. sponsors yi ñooy daw ñëw ci ñun ndax xam nañu lan mooy événementiel xam nañu lan lay apporter ci dans un pays xam nañu ban visibilité lay def je me rappelle une fois euh, Gims il était assis sur France 2 ak Michel Drucker ak Omar Sy moom mu naan mës Sénégal ça pousse aux étrangers de venir dans ce pays-là. Quand les artistes viennent, c'est l'image du pays. Alors que lolo, suñu état suñuy euh, entreprise yi nekk fii dañ ci war a teg seen loxo pour yombalal ñu ko mais c'est un combat qu'on est en train de faire de travailler en espérant que yàlla dinañ ci dimbali mais nag yombul indi deux trois gros artistes internationaux sur une même scène c'est quelque chose de lourd man je l'ai fait avec Dadju et Gibbs mhm. mais c'est du jamais vu mais ça n'empêche pas que on courait derrière les sponsors de ce qui n'est pas normal mhm. alors événement daaw gisoon nañu joxoon opportunité artistes locaux yi surtout ñu ñu. c'est normal xamagul woon euh, ñu ñu xamagul woon euh, amoon nañu chance. ne damay jouer ci concert u Dadju ren ñu gis quatre artistes rek nga nga def si si si affiche yi est-ce que day am artistes yu ndaw yoo xam ne dañ mën a prester jour boobu. quatre artistes, même si beaucoup. Les artistes qu'on ramène, ils font deux heures de spectacle. Dadju, il fait du live. On lui laisse le temps de faire sa prestation. Ngaka Blindé, c'est pas un petit artiste au Sénégal. Mm -hmm. Jaman, live les jouer ou les playback Non, il vient avec son DJ. Jaman, pareil. Djiba, il monte en ce moment. Mon c'est la découverte, année 2020. Mhm. Djiba Dieyla elle est en train de machallah les quatre artistes locaux ñoom rek mënoon nañ tëgg musée des civilisations noires loo ci yokkati encore il faut que man damay bëgg ñuy bàyyi artistes yi di jouer qu'on leur laisse le temps de faire leurs prestation mais quand tu ramènes dix artistes ku nekk benn morceau lay dafa wàcc te loolu même son public n'a pas le temps de déguster son artiste je veux que Ngaaka Blindé Diamane Djiba Dieyla puisse se produire na seen événement la ñu woyloo public bi fecculoo public bi ki leen xamul woon xam leen ki leen xam profito ci loolu avant l'artiste daal di monter sur la scène. Mhm. et c'est important. d'accord euh, ticket yi ticket yi tamit euh, cher na. les tickets non ticket yi cherul tu sais <clears throat> pour ne pas parler de xaalis. quand on te donne le budget de ce qu'on fait pour pouvoir faire ces concerts-là. par exemple concert live bi ñaa ñaata ñaata nga. non fi amul benn artiste sénégalais lay wax. buy hmm. toog nga koy laaj ñaata lañ lay fay mu la koy wax. man boo gisee bëgguma loolu c'est pour le respect de la personne qui m'écoute. am na koo xam ne il a un problème pour manger ce soir. yow nga toog naan je paye autant dañ naan mais qui est-ce que pour le respect de ces gens-là je peux mm-hmm. pas parler de xaalis fii li ma bëgg ñu wax mooy c'est un budget colossal c'est lourd c'est difficile tey jii bu ñu jaayee suñu billet yëpp kenn mënu ci génn moo tax ñuy ñaaxaat sponsors yi ñuy jàppale organisateurs yi nga xam ne ñooy indi artistes internationaux yi mm-hmm. parce que c'est pas des artistes locaux artistes locaux yi je les adore je félicite maa ngi leen di encourager musique sénégalaise bi tey mu ngi dox bu baax tey gis naa ne ni mu doon doxee il cinq ans ak aujourd'hui c'est différent la preuve quand on regarde sur les YouTube de nos artistes ils sont ay millions aujourd'hui mhm. te il deux trois on avait du mal à un artiste sur YouTube qui nous fasse fiesta moo tax tey dañuy sant yàlla artistes sénégalais ñu ngi liggéey ñu ngi jaay musique bi ñu ngi évoluer sur le plan international ba ligue étranger ñu ngi commencé di leen découvrir ça c'est bien dama leen di encourager ñu continuer di liggéey man daal dafa def lu waaye def rek dama naan tu peux faire mieux ñoom ñëpp nag muy ko mag ba ci ndaw on peut toujours faire mieux non man léegi diw laa non non non non dañuy jàng ba tey muy man muy sama morom kenn mënul dara jàng ndax ne man am naa wala mën naa am na kenn koo xam ne moo la ëppali fuuf moo la ko dàqali fuuf te mu ngi jàng kon loolu na nekk leçon ñu gën a góor ñu gën a liggéey mais il faut que sponsors yi di jàppale artistes lu koy di jàppale promoteurs yi nga xam ne ñooy xeex pour indi artistes internationaux yi nee naa la encore une fois si on avait vendu tous les billets des concerts organisateurs génnu ci billet d'avion hôtel cachet parati patata budget bu dul jeex la moo tax il faut que partenaire di jàppale gars yi pour muy sama muy man di sama morom ñëpp di mën di góorgóor di indi artistes yi ñuy ñëw lu bëri ci suñu réew ndax loolu jaay suñu culture la. Mm-hmm. Euh, temps temps bi tënk nañu parce que da nga war a dem yow moom <laughs> amoo jot. Euh, di leen gërëm waa Sénégal di gërëm sénégalais yu ñuy seetaan euh, di wax affaire bi nag vacance moo nekk mooy ñëw on ouvre le bal avec Dadju di artiste bu ñëpp bëgg di wax na gars yi teel a ñëw les billets sont déjà disponibles gars yi xam nañ point de vente yi fu mu nekk te tàmbali nañu nag jaay bi yi. Mm-hmm. te man leer na man li may wax du ay caaxaan. billet prestige moom man amatuma ci tey am na yenn. boutique yoo xam ne duñ ko jaay ndax y en a pas non sincèrement waxuma ko pour blabla la ku demul gaaw a jënd sa billet man li may wax lu leer la dinañ ma woo di laaj ay billet prestige man amatuma ci te ñi ko yor bëreetuñu ci ay boutique parce que man du wax lu neex doomu aadama damay wax li ma xam moo tax ma ne il faut que gars yi teel a dem jënd seen billet euh, événement bi suñu événement la événement wu Sénégal événement wu média sénégalais la Euh, yàlla nañ ci yàlla may ñu àgg ci jàmm ba nit ñi am liñ ci bëgg ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin mm-hmm. mais itam nañu jàpp ne am na événement bu mag buy ñëw festi Dakar mois de décembre mm-hmm. ici à Dakar ça quelque chose de lourd ça va être du lourd nag mm-hmm. ndax artiste boobu musul ñëw Sénégal ah bon doo ñu wax kan musul ñëw Sénégal et ça va être du lourd ah, que tout le monde l'attend à Dakar buñ ci yàlla mayee ñu àgg ci jàmm dinaa fi toogaat waxtaan ko pour wax leen nag raxu prod raxu prod lu ma leer la du français bien moom dañuy changer de dañuy changer destination ça va du lourd ndax l'artiste n'a jamais mis ses pieds ici que sénégalais ñu ngi koy xaar bu baax a baax mm-hmm. yàlla nañu yàlla may sutura jàppale ñu taxawuñu ñun ñëpp di am mbégte lool encore Aïda mm-hmm. merci beaucoup